am kantaa mu tontu leen nag loolu moom yëfi boppam la mm-hmm. il a des conseillers loolu yëfi boppam la mm-hmm. mais maanaam le lieu nat ba mën na ñàkk Ousmane Sonko am na ñoo xam ne soxla na esplanade mais soxlaatu ko Ousmane Sonko bu defee live këram rek en une minute il a un million bul fàtte ne dafa jege askan bi nag. moom noonu la ko Sénégal xamee. noonu la ko sénégalais yi bëggee noonu la ko xale yi bëggee. à chaque fois parce que jeunesse waaw ñoom ñoo woote woon loolu tax ba yaakaar naa ne tey jii Ousmane Sonko mënut a génn daan def ay meeting. tey fu mel ne ay Kër Massar ak feneen ak feneen di taxaw di communiquer ak askan bi mm-hmm. ba xale yi gën koo bëgg ba ba ba tey ji yaakaar naa mu yegg si fi mu yegg si mm-hmm. mu newaat du génn parce que or daan na daan na def communication boo xam ne mm-hmm. daan na toog ci këram wax parensaay daan na génn woote fenn parensaay mu ne heure bii laa joxe na ñëpp génn wala dara xale yi di ko si wuy si le Sénégal est dans l'immédiat soo seetloo waaw tamit ñu dama bëgg nit ñi gëm ne dañuy wax ci ñoom yëpp du far bu ñu lu ñu bu ñu gisul lu ñu doy ñu xam nga loolu li koy def yëpp. Mm-hmm. nekkul nekkul ñaar dërëm ak dërëm. par rapport ak yow nga taal sa oto am cortège dem toog RTS wala nga toog ci benn këru média def sa discours yàlla moo ko may. Mm-hmm. man man mii tey su ma doon woo su ma demul esplanade kenn du ma déglu te dina ma tal. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko moo la ko. mais euh, financement bi def loolu keroog loolu du passif maanaam c'est pas passif ce qu'on appelle passif moo tax man bëggaatuma mu am. man li ma gëm mooy fu mu waxee ñu déglu ko loolu la ko yàlla may. ah man Macky Sall bu dellusiwaatoon léegi di wax am na ñoo xam ne dañuy fubali ñii ñii nelaw yi mais moom bu waxee dina yàq ah, man de man de ma li ma gis mooy ni mu daan def di génn di communiquer ak askan bi ba tey bu mu ko bàyyi mm-hmm. parce que Ousmane Sonko du président de la République c'est le premier ministre mm-hmm. te macha allah kii falu tey di jomaay moom moo ko fal mm-hmm. te nit ñi dañ koo xam ci baaxoo nit ñi di ko gis muy génn di communiquer ak askan bi fu mu woote nit ñi gis ko kon yaakaar naa ne nit ñi duñu la wuy si wuy si ba nga jot réew mi nga jekki-jekki communication yi nga daan def di génn di woote nit ñi di la wër ah mais mais pour bu tontu loolu ci moom lay dépendre ndax Bougane bu mu génnee bu mu waxee tuddul turam mais Maïmouna Ndour Faye bu mu gënee non pour man Ousmane Sonko amul seen jot sax ba di leen tont man loolu laa gëm parce que tey boo bëggee def boo jiitoo ku wax rek nga ne danga koy bu yàggee tamit mooy loolu mm-hmm. Ousmane Sonko am na leen lu ko ñor lu dul génn di tontu ay Maïmouna Ndour Faye génn di tontu ki nga xam ne mooy bugaan mm-hmm. ñoom wax moo leen dese mm-hmm. ñoom parce dafa am loo xam ne dafa tegu seen ndodd nekk seen ginnaaw kon nañu génnee loolu ñu décharger li nga xam ne moom lañ waral moom lañ warloo ak askan bi mm-hmm. man pour man moo ëpp solo pour Ousmane Sonko di génn di tontu ñooñu bu leen tontoo may leen bës Mhm. pour man Ousmane Sonko amul seen jot sax te du leen tontu. Mhm. nañ jéem a xool li nga xam ne moom moo nekk seen dodd ñu jéem ko décharger moo gën parce que amuñoo ak Ousmane Sonko euh, affaire. Mhm. ñoom justice dañu amal affaire alalu réew mi lañ yore Ousmane Sonko wax na ko nee na moom toppantewul ak kenn képp lu ko waaye def jéggal na la waaye képp ku ci yor alalu réew mi di ko fay. loolu kay jeex na mais communication bii muy faral di def. man de man de ma ku nekk sa gis-gis. man pour man Ousmane Sonko waru ko bàyyi parce que dafa génn daan communiquer ak askan bi ba askan bi bëgg ko ak yooyu kon bu toogee ba nga xam ne war na am lu mu bëgg dafa war a génn di waxaat ak askan bi. Euh, euh, bi ngay wax noonu il était le chef de le premier ministre. Mm-hmm. le chef du gouvernement cest à question de temps laay wax nekkul lu ma ñaawlu. Mm-hmm. mais temps. fi mm-hmm. Sénégal toll. organisation ba temps boobu.

ak plus yaakaar nga ne du fi defar du ko defar du ko defar. non man je pense que dina am parce que c' est pas Ousmane Sonko moo convoqué mais c' la jeunesse patriotique du Sénégal. waaw mais xamante ne tey Ousmane Sonko mooy seen leader mooy seen leader Pastef c' est à dire que Pastef yi nekk Sénégal yëpp ñoo daje woon Grand Théâtre waa waa Gambie waa Kédougou waa Tamba man ñi ma doon interview fàtte naa sax fu ñu ma doon wax ni ñoom fa lañ jógee. mais nañ ko yërëm bàyyi ko mu liggéey. <laughs> sinon day tontu. waaw gisoo leen commentaire bu démb bi waaju nee na son excellence bul yàgg ndax ki ndax pro dina tontu imam <laughs> boobu la ko may mu ne ko boo demee France bul yàgg rek ndax xam naa ne pro dina tontu imam bi te kon xam naa ne ñi mu nar a tontoo bari. imam bi moom daa xëy na daa bëgg lool rek xam nga ku nekk président alab lébu la alab lébu alab bokk ci Ndakaaru waaw dañoo dañoo bëgg dañoo bëgg ku leen ku leen jox ah. cër te lébu yi ku ne xam na ne la ñoo ñoo ah. moom Ndakaaru xam naa loolu mbégte la mbégte la rek lay doon ci ñoom <laughs> ku ci mel ne président Diomaye ñëw fekk si leen nuyu si leen ak loolu mbégte la rek ci ñoom balaa man dëgg yàlla bi ñoom nañ def yóbbu tamit sinon bugaan day <laughs> moom na dem fay ay impôt moo gën ñi ngi nuyu macha allah ñi nga xamante ne macha allah ñëpp ngi si jotaay bi Sala Gueye ngi leen di jaajëfal aji si ndey macha allah euh, beeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndaxte am nañ contentement bokk ak yéen jotaay bi waaye itam macha allah gis nañ commentaire yi nga xamante ne rek alors ñi ngi am ngoone nag ñu annoncé mariage bu rëy rëy rëy muy ki nga xamante ne rek moom moo di Zeyna ah, ah, moom la ñuy fas yéene takk suñu confrère waa Sénégal 7 nag ñoo ñu ko daal di xamal ñoo daal di def bile bataaxal ak bile xibaar ñoom ñoo ko daal di ah, annoncé sur les réseaux sociaux su ma jumul ñu ngi ne le 7 juillet incha allah mariage Zeyna Ndour ki kii takk Zeyna nag xamaguñu kan la waaye jamono gii nag ngoone mhm. mariage bu rëy fas yéene naa am ndax gis nañ bu bees bi nga xam ne Viviane def na ko dippee ko xarit jël mhm. doomam teg ko ci clip bi wane mhm. complicité bi nga xamante ne am na ci diggante mag doomam Viviane ñàkkul ay xarit mm-hmm. waaye li tax mu gën a jël doomam day gën a gën a waral taar ci diggante yaay ak doom dañu naan mm-hmm. sa doom du la trahir sa yaay du la trahir ndaxte doon na mm-hmm. des fois sax nga gis yaay nga gis doom bu trahir yaay waaye yaay ak lu mu metti metti bu xalaatee ne mu bu juróom-ñeenti eh, weer rek lu am solo la ñu annoncé mariage am nag mu nekk nag loo xamante ne ah xam naa ne nar fa yomb ah macha allah waa loolu ak ak ak ak ak clip bu bees beeg yooyu mu def ak Zeyna ak yooyu est-ce que du buzz rek. ah nañu ah. Ah, allah bu dee loolu moom. mariage bi am na moom wax dëgg <laughs> yàlla dañ koy ñaanal. waaw yéene nañ ko ko moom wax dëgg mm-hmm. yàlla Zeyna parce que tamit wax dëgg yàlla xale la duñ ne toogaay bi yàgg na sa parce que mm-hmm. tollu fenn. effectivement Zeyna bi mu fi juddoo démb rek la yàggul mais mm-hmm. ba ci clip bu bees bi nga xam ne moom la Viviane def ñëpp di ko rafetlu. parce que fii ku dee wut xarit ak utal sa yaay xarit doo juum parce que xarit dafa nekk loo xam ne lu dangereux lu doy waa trahison yeeg yu baree bari te Viviane ku ko xam yaakaar naa ne peut-être am na ay xarit mais gisuñu ñu chaque jour muy fësal ay xaritam wala di ànd dem ak ñëw mhm. parce add àdduna bi dafa xam toll foo xam ne dafa doy waar ay satu mhm. trahison yi dafa bari tey xarit yi ay demalanteeg dikkale man de dama part ja am naa àndandoo mais xarit dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. ñu lu fon fon fon nga xam ne tey lu yenn ci yow fanaan ci moom dañ koy xool xoolaat ko kuy tool yaakaar naa ne boo xaritoo sa doom wala nga xaritoog sa yaay yaakaar naa ne doo juum parce que nit ñi dañoo lëndam surtout Sénégal vraiment ni mu ko wayee clip bi neex na xaritoo li dul ak doomam te vraiment ñëpp dañ koo gis Viviane fépp fu mu jëm doomam lay àndal mu nekk Zeyna fu ñuy muy tëgg soirée ak fépp fu mënta dem da ngay gis doomam nekk ci wetam mhm. kon yaakaar naa ne loolu nekk na loo xam ne xam nga way moom day yeete képp ku jël sa yaay wala jël sa doom def ko li nekk xarit rek doo juum mhm. nit nag doo ñàkk am ay àndandoo ay nit ñoo xam ne yàlla suñu borom da leen boole waaye xarit moom toll na foo xam du ma ne xarit amul mhm. waaye xarit nag yaakaar naa ne bareetul parce que nit ñi moom li ñuy wax ne dañuy lëndam am na ñoo xam ne dañuy affiché gu indo dawal kabooy dañuy signaler gauche jàdd droite mm-hmm. waaye nag ñu xoolaat li nga xam ne moom mooy comportement yi ci saa su nekk mm-hmm. waaye ni mu ko defee ci clip bi wax dëgg yàlla neex na te am na li nga xam ne mooy solo xel dal na bu ci mariage toppee day gën a neex rek wax vraiment <laughs> def man ko looy wax ci nouvelle boobu <laughs> ah nouvelle bu nouvelle bu intéressant la mm-hmm. complicité yaay ak doom moom. Mhm. ku bon doo nga koy bañ a apprécier. wallaay dëgg la. te tamit doom tamit yaayam mooy royukaayam. donc mhm. ah, mu ci muy am lu bari lu mu jàngale rek moom mooy xaw na jafe nag. Mhm. xaw na jafe léegi da gis euh, euh, yenn parents yi dañoo démissionné ci seen i doom. xam nga euh, les gosses se sont a à eux-mêmes. lan lan neex def mais loolu lépp luy li tax mu mën a ñàkk moom mooy nga.